aleykum la xamoon ca diiwaanu ndar lu jiin njaaga nguurug Sénégal mooy njaag Macky ak gaayam yi fa ñu ñàkkal fayda jafe-jafe askan wi moo tax bu ñu fi pour mu métti du samay kàddu nag Alioune Badara Cissé médiateur de la République moo ko wax Walfadjri yéen a kaay yeggee ñu ko source a yéen a kaay na ko Alioune Badara Cissé kay donte Macky la faral Macky la àndal tamit bu laajee mu wax ko dëgg fa koy def ndax ginnaaw coowal ndar li Alioune Badara Cissé nee na sa jàngoro ja loolu du yoon d'accorduma ci ak yow de président du wax ne mënumaa def président du wane ak tëleem xam nga li la war te maa ngi koy digal mooy xaral sa tànk tubooy mbooleem doole xalaat pexe moo xam def ko ngir jëli ji sénégalais nekk Chine di ay étudiant su ko defee nga andi mbégte ci xolu seeni waajur nay leer laneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne diiwaanu ndar mool ya mer ga ñu mer ak yëngatu ba dëkk ba yëngatu réewu Mauritanie rekk moo ko mën a dalal waral li sonal mool yi du sax licence ya waaye alamaan ya ca réew Mauritanie teg ginnaaw buñ jalgatee yoon ñoom mool yi xaalis boobu moo bëri Dakar Times moo ñu ko xamal jëwriñ juñ dénk wàllu napp gi Alioune Ndoye ne mool yi loolu ñu def keroog ndar ñaawlu naa ko ba ca kanam yàlla du dëgg du yoon xam nga lu la naqari wane ko waaye toj yàq xalal joo xam ne ñëpp ko ñu wax ngeen naan ay licence ngeen di laaj nañ waxante dëgg xam ngeen du licence licence seen jàmm kàddoom yaa ngi ci le quotidien yéen a kaay a kaay bi di Sud Quotidien na jëwriñu dénk wàllu napp gi Alioune Ndoye dem na diiwaanu Ndar ngir fay lakk ga daay ga dëfal xol ya te li ni mel mel na ne am na ko aa seet waxtaan a kaay bi ne na mool ya ca seen bopp d'accord nañ nangu nañ na fa ñoo juum lañ defaruñ koon a def te ñoo nekkul ci yoon nag ba tax ñi jéggalu Le Soleil yéen a kaay na leen voilà looloo baax léegi nag ma jox leen xibaar bu neex réew Mauritanie baxal na leen fomp na effacé na jéggal na leen alamaan yi tegoon ci seen licence yi ji dénk wàllu napp gi dëggal xibaar bi na ko waaw waaw Mauritanie annulé nañu seen alamaan yi te loolu rek moo a dàkkante xiiroo ŋaayoo tamante ndëmb bi ba léegi ma nga mel ni tuleeg màlle ba taxawal fajir yéen e kaay ne bu garaaw ci la Macky nekk ak gaayam nay leer ki tontu tontu yi leer naññi bun Abdallah Dionne bi ko doon tuumal ne moom ab tubaab la moo jógee France ñëw amal audit càmbar doxalinu kudd ba wane na Cheikh Oumar Anne nam ko yore woon baaxut bëri na labaj tappale ki defoon rapport boobu nag Pape Ibra Kebe a tudd nee na bun Abdallah Dionne yow laay waxal déglu ma man hab sénégalais laa saalum-saalum nag boole ci Kaolack laa juddoo jànge lycée Abdoulaye Niass dem France jàngi ma del si sama réew ngir dimbal boole ci sama xam ma gëstu ko gis na yorin wa jaarul yoon ma wax ko ngay taxaw naan ki ko defoon tubaab laa du ngeen bàyyi seen waxu caaxaan caaxaan yooyu yéen lépp fa a di libération bi ñu xamal ne kër ga ñu wax asbef yëngatu na de wàllu détournement këpp kees doxalin wu jaarul yoon moom lañ fa nemmeeku de ba tax takk der yeeg enquête kat yi ña nga sa seeni tànk ki jiite kër ga ci Sénégal yëpp gaa ñaa ci ay tànkam ba ci seen antenne ba nekk Kaolack ka ko jiite foo usage de faux moom la ko gaañu joxoñ baraamu tuuma keneen kuñ tuumaal ne Miss Sénégal bi ki ko jox mérité wut ko ndax fa ñaaw ba ñaaw paaral mooy Amina Badiane mi ko organisé ci la Soleil yéen a kaay nee na sénégalais yi may leen ma jàmm ngir yàlla sonn naa gis nga nekk miis duut ngay rafet rek de déedéet mën ngaa ñaaw terewut xel meeg xalaat beeg njàng mi tax nga nekk miis kon nag su boobaa nañ génne baatu miis bi ndax miis mooy ki gën a rafet waaye ñaaw ba ku la gis humu leeralam yaa ngi ci la Soleil yéen a kaay la mu ñu leeralal moom turbine yéen a kaay mooy kan mooy Cheikh Anta Diop ndaanaan kàngam bu mag ba waaye juróom bu jigéen soxna maam Cheikh Ibra Fall la woon mu yaroo ci ëttub kañ sëñ Tuubaa diggante mook sëñ a kaay bi dikk na ci enquête yéen kaay ne pharaon xam-xam moo doon Cheikh Anta Diop bi mu génnee àdduna léegi nag fanweeri at la ak ñeent yéen kaay bi jox ay borom xam-xam professeur yu mag ñuy seede ci Cheikh Anta Diop ayaw seetal xam na ci ñoom ku ne Cheikh Anta der bu ñuul la delloo ab dayoom wane na war naa mën a am xam-xam baraw tubaab yi xam keneen ku ko feelu na ko Cheikh Anta lim bind képp ku ko jàng fa lay xee l'observateur xëy addu ci ay sénégalais yuñ tegoon loxo ci réewum turki diggu guddi lañ leen xee ñu ne yóbbu leen ci kaso goo xam ne ci àll bu xonq bi la nekk ñu bëggoon a tëj kaso nag mu rëcc Ndour woykat ayaw seetal wàllu tappale visa moom lañ koy toppee critique yéen a kaay ñu ko xamal l'observateur na ko ma leeralal la ña ko wër ak ki fi nekkoon jëkkëram Moustapha Diop ak ménagère am ba ñoom lañ toppee ci wàllu tappale gi ni mel ba tax sandarma yi ñu ngi leen may ay gët may leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne soxna suñuy wax Zeyda Zaman sëriñu laayeen yi mere nañ ko lool vox populi moo ñu ko xamal ne sax du sëriñ si waaye njabootam mboolem koo xam ne ci laayeen nga jokk ñaawlu nañ doxalinam waaraatee meeg di ca dugal nag ay wéy yoo xam ne wéyu laayeen la lii moo métti gaañi na nag bu dakkut danañ ko jëflanteeg moom ka yoon jëflanteeg ba jàpp ko daan ko tëj ko fukki atu kaso du kenn ku may Maodo Wele ayaw seetal waa ji daal les écoles yéen a kaay moo ñu xamal ne xat yu bëri yooyu fañ ko ko tëj kaso ndax fa jàkkaloog attekat ba na ko li ngeen ma tuumaal yëpp dëgg la tëddee naa violé naa juróom-ñeenti xale yu jigéen tuut tànk yu xamul sax fukki ak ñaari xale yu góor waa ma ne na daal aaxiru zaman lañ nekk magam jëmm taxaw di wax ne maa def ñaaw téef bi ni mel lu raw tëj kaso moo jaadu ci yow